ma ko bëgg bëri gi dee ba benn waay Ban fan. sa ndereb capitaine Dina sa ndereb moo la wan ginnaaw ngemboo ngemb lu ñuul ndaanaan la ci làmb capitaine Dina yoof la jóge ndaysaan waa yoof a ko indi ma nga noonu moom it ndaysaan moo ëpp ñu xool ni ñuy bëree kaay leen ñu xool ba xam dañuy xeex kaay ñu xool ba xam dañuy laale ñaari xale yi ndaysaan sa ndereb ndaysaan jiital la tànk càmmoñ capitaine Dina jiital tànk di joor leewaato ndaysaan ku ci nekk mu ngi natt sa morom muy capitaine Dina di Sandaret ñoom ñaar ku ci nekk ñu ngi xool say bët wala mu ngi xool moromam ci bët ndaysaan gis nga capitaine déplacé wu na ba fi Sandaret taxawoon mu taxaw fa waaye Sandaret mbaru simple la daa bëre dagg na bi ndeysaan capitaine Dina sans deret capitaine Dina ngay dox ci koom mu ngay dox ci kaw sans deret mbëkk na ko lii lu mu doon jël na ko takk na ko capitaine Dina takk na ko sans deret da laa ilaaha illallah daan na ko laa ilaaha illallah capitaine daan na sans deret capitaine daan na sans deret capitaine Dina daan na Sandarab capitaine Dina daan na Sandarab